leen tale bàyyi fu ngeen mën si nekk fond baa ngi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour shérif yi nangam ak nangam ak nangam yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na donc bon fond bi daf nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal bàyyi la ah digalal bàyyi la bi itam ndimbal la ci bàyyi maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy ñuy tabax ci la bokk kuy tabaku nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa ko wax du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax. bon bii nag yëkkati nañ ko ngir bàyyi heure bi ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci na la bokk. li bàyyi gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci dix millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi muñ ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim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 madinatun ku jug madina la waaye moom is naa ni ñaar la aw arbaawum ikki ñenent wa sittuuna ak ñeent ak juróom-benn fukk ay tan ci kawteef bismillah si sama sama fi tudd buur rahmaani kay aji xeewal mi julli daal ci àllaaxira suuratu anzal suuratun li saar la anzal na haa boobu wasal nañu ko wa farat naa haa te farat te ko ci nit ñi saaru nuur yàlla moo ko wàcce te yàlla moo moo waral àtte yi nga xam ne mi ngi ci yàlla moo ko waral ci kaw nit ñi de wa anzalnaa nu wàtte fiyaa ci moom saar wi aayaatin ay kawteef bayyinaat ñu de way weex la'allakum ndaxtale yéen jullit ñi tazakkaruuna ngeen fàttaliku ba xalaat ngeen xalaat ba fàttaliku ba gëm yàlla de yàlla moo wàcce suuratu nuur te mu ngi ci wax mu ko wàccee ay àtte ay àtte ngi ci biir yàlla ko wàccee ak itam ay kéemtaan ak i mbóot yoo xam ne mu ci biir yu leer naññi loolu yëpp mu ne yàlla wàcceel na leen ko ngir jàngal leen ak itam ngir ngeen sant yàlla ba mën a taxawee li nga xam ne moom la yàlla sant leen ngeen def ko te mooy ngeen gëm yàlla rek azaniyatu aji njaaloo ju góor ju jigéen wa zani ak aji njaaloo ju góor fajilu du hitteel eh, fajlidu caw leen ku kulla waaxidatin képp ci ñoom ñaar képp ci kenn ci ñoom ñaar minhuma ci ñoom ñaar meeta jëllatin téeméeri yar de koo xam ne nag dafa njaaloo bu góor njaalookat bu jigéen bu ngeen leen jàppee mu ne na ngeen leen itteel na ngeen leen caw na ngeen leen yar caw ay yar loo xam ne téeméeri yar lay doon kenn ku nekk ci ñoom ñaar de ndax njaalookat bu góor ak ñaarookat bu jigéen dañoo génn yoon bi nga xam ne mooy yoon bu dëggu yoon bu nitee bu ko defee loolu dafay indi ci biir société bi leneen loo xam ne bokku ci bon nag ñoo ñooñu nañ leen gaaw teg leen yar yoo xam ne danañ danañ taxawal loolu dootuñ ci duggati moo tax koo xam ne njaalookat nga ngay jigéen ngay góor bu ñu la jàppee mooy kenn ku nekk cewoon nañ laa cew téeméeri yar waaye niñ lay jàppee nag mi atte bi xam naa ñëw ci kanam tuuti wala taaxus kom bu jàpp leen bii ma ci ñoom ñaar rafatun yërmande fii diini laay ci àttee yàlla yi de bés bu ngeen leen taxawalee nag ba war a teg ci ñoom yoon bu leen leen yërëm bu leen leen yërëm de ci loo xam ne yàlla moo ko dogal yàlla moo ko àtte bu leen ci am yërmande def leen ko rek ni ko yàlla waxee ndax yàlla moo leen ëpp yërmande te moo dogal atte boobu bon nag loolu yàlla atte dogal def leen ko rek te bu leen fi nekk naan da ngeen a am ci ñoom yërmande da ngeen leen yërëm ñu ngi dagg loxoom ñu ngi da ñu ngi koy jam ay doj bam mu dee nga ne yow da nga koo yërma ndax yow da nga koo yërëm lii nangam lii nangam bu boobaa na nga xam ne li yàlla tëral moom ngay weddi ne du dëgg bëgg indi yeneen atte yoo xam ne yàlla tëralu ko yàlla mu nag bu boobaa loola Euh, sa sa sa sa ñàkk xam rek la sa ñàkk dégg rek la te itam yàlla dina la fay te lim lay fayee mooy safara de taxawal nañ nit ci bés penc ne ko yàlla tëraloon na lii atte woon na lii lu tax nga yokk ci atte bi yàlla bi mu ne damaa kër rek ndax nit ñi bañ a aw bañ baña bañ a jéggi yoon moo tax rek ma def loolu mu ne ko yaay def ba nga xam ne yaay def loo xam ne yow boo ko defee nit ñi mel nii te man li ma def munul te man atte naa ba pare sama atte ga li ci teg beneen atte ne moo gën yow demal safara dal di ko yóbbu safara de nit tem ñëw na yàlla mu ne yow lu tax nga taxawal lu tax nga wàcce lu tax nga wàññi atte bi mu ne dama dem ba yërëm ko rek gis ne attanatu ko moo tax ma yërëm ko rek wàññi ko mu ne ko man maa la ëpp yërmande te ma tëral lii ma tëral atte yow ngay ba tëral beneen atte ci sama kaw atte safara yow safara rek nga jëm de bon nag yi nga xam ne yàlla moo koy atte yàlla boo attee bu attee atte bi yow comme nit atte bi métti na ci yow atte bi ah, sa xel rafetluwu ko bàyyi rek yàlla moo ko attee yàlla moo ko tëral defal li yàlla wax mu ne nag bés boo xamee ne yéen a leen di tiim bay def yooyu nga xam ne yàlla tëral na ko mu ne bu leen leen yërëm bu leen am ci ñoom yërmande waa bii ma rafatun fii nii ñu laay ca kawaate yàlla yére in kuntum dem nekk ngeen tuuminuuna diggam billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés laaxir ba daa ji mujj su fekkee gëm ngeen yàlla gëm ngeen ne bés penc mi ngi ñëw yooyu yàlla xatte tëral ko def leen ko rek moo gën ci yéen waaye nag su fekkee defu leen ko ndax indi ngeen si nattey bopp tëral ko place loolu na ngeen xam ne du leen amal du leen yokk dara ëllëg ci àllaaxira bi nga xam ne fa lañ jëm de li lay yokku dara dara mooy li yàlla tëral rek nga àtte ko rek wala yester ne teewe azabahuma géttan seen taifatun mbooloo minal muminina ci way gëm ñi de su ngeen demee nag ba di leen xàtte ba nga xam ne lii leen tuumaal sax na ci ñoom ndax tuuma ju sax tuuma ba saxal ko ci kaw nit boobu la àtte di door a ñëw waaye tuuma rek kese kese noonu amoo lu ko lu ko dëggal yow moom la ñuy teg ci sa kaw àtte yow yow sa bopp la ñuy teg ci yow yoon de bu ko defee nag fekkee dem na ba nga xam ne tuuma ji sax na ci ñoom ba ñu war leen a teg yoon mu ne na ko ñeenti nit fekkee wala juróomi nit lum lum gën a néew daal na mat ñetti nit yoo xam ne danañ fekkee ne ñu ngi def ci ñoom loolu nga xam ne yàlla def na ko yàlla santaane na ko ci ñoom de azani aji njaaloo ju góor laa yankixu denciti moom illa zaniyatan dara aji njaaloo ju jigéen foo fekk kat nag bu góor buy takk jabar na takk njaalookat bu jigéen ni moom rek loolu moom doon atte moo doon tëral bu njëkkiñ ba kuñ xamee njaaloo rek bu fekkee ba takk jabar jot na jigéen ñu xamee njaaloo moom ni lay may waaye gannaaw gi nag laay jooju yàlla folli na ko ci yeneen laay joo xam ne moom la ko follee de mu ne nag su fekkee loolu moo amoon bu ñuy tëral bu ñuy bu ñuy wéral atte yàlla ci ku njaaloo mu ne na ko ay nit fekkee bi muy tudd nag njaaloo bi muy indi àtteem njaaloo jigéen la njëkk a indi azaniyatu ndax jigéen ci moom lay njaaloo di mën a amee ndax jigéen bu nanguwut kenn mënu ko njaaloo moom moom mooy nangu rek jàppandal la nga mën a am moo tax bu muy tudd àtteey njaaloo ci jigéen la njëkkee waaye gis nga ba muy tuddee àtteey eh, sàcc ci góor la njëkkee de saariqu wa saariqatu moom la wax parce que sa eh, sàcc moom doole moo koy def ak ñeme yoo xam ne jigéen du ko ñeme moo tax njaaloo nag moom jigéen gi lay neex rek mu am waaye jigéen bu mu neexul rek kenn du ko kenn du ko ko def de aw mushrikatin aw mushrikatin iki ay iki bokkaale kat de yaa mu takk njaaloo kat ni moom yaa imaamu takka xéefar wa zaaniyatu aji njaaloo ji jigéen laa yen fexowa takkati koy la zanin ndara aji ñaaroo ju eh, ndara aji eh, njaaloo ju góor de jigéen ju njaaloo itam góor gu njaaloo rek moo ko war a takk de wa xorima dalika xaraama lef na loolu la alal muminina ci way ragal ña yàlla ci way gëm ñe ñi nga xam ne nag ñoom gëm nañ yàlla na nanguwuñ yooyu loolu moom yàlla araama na ko ci ñoom ñoom duñ ko def de wala dina ñaan yar mun a danañu sànni yi jigéen ñi daway sangewu su ma lam yàttu topp di kew ñu bi arbaatay shuhadaa ci si seede fajliduuhum caw leen leen samaaniina jëldatan juróom-ñett fukki yar wala tax ba du leen nangu bu leen nangu loo ñaar leen shahaadatan ak seede gannaaw loolu ci dara abadan dappet wa ulaayika ñooñu la gaay hum ñoom al faasiquuna ñooma de way faasiq de ñooma de way gën topp de su fekkee nit tuumaal na jigéen yoo xam ne dafa sangewu mu ne na indi ñeenti seede yuy saxal ne li wax dëgg la su fekkee mënta am ñeenti seede dañ koy caw moom juróom-ñett fukki at tuumaal na jigéen te li mu ko tuumaal indiwul lu mu ko saxalee indiwul ñeenti seede yoo xam ne danañ nangu ne li nga wax ci ndaw si dëgg la su fekkee mënoo am ñeenti seede yooyu yow lañuy ñuy caw ba pare nag bu ñu la caawee ba pare du ñu am ci caaw la rek dañ lay melalee ne ne fa sex nga dañ lay melalee ne sa seede kenn dootu ko nangu dañ lay melalee ne duñ la kenn dootu nangu sa seede ah te itam yàlla dafay nangu ne yow fa sex nga dul rek boo tuubee de boo tuubee nag yàlla dina lay jéggal illa lazina ndara ñaaña taabu tuub na ñu min ba'di zaalika ci gannaaw loolu wa aslahu te ñu xewenal ay jëf seen fay na laa nag yàlla foor na ji la mu ay ay ay ay jaamam raximu na ji yërëm la mu leen yàlla moom borom yërmande la boo tuubee rek mu nangu sa tuub de waaye boo tuubu nag de des ca sa euh, wax yi nga waxoon na nga xam ne yàlla itam mi ngi fi rek ak atteem yoo xam ne du dañ de ne jëmmi bés saxaab benn saaba toog nag yonantu ne ko ah atte yi alxuraan wax jafe na de ndax dañoo wax ne njaaloo balaa sax ala fokk ñeenti góor ñoo xam ne ay góor lañ ñeenti góor ñoo xamee xamee nañ leen maandu ñoom ñëpp ñu gisandoo ko te kenn wanu ko sa morom ñoom ñëpp ñu gisandoo si ni muy duggee ci pay bi ñu gisandoo ko ñoom ñeenti ñëpp te kenn wanu ko sa ñoom ñoo ñooñu ñooy seede ne njaaloo am na su fekkee nag ñeenti ñooñu mënoo leen a am bon yow mi tuumaal jigéen ji yow saa un jëkkëram nga wala jàmbur nga ci moom yow la ñuy teg yoon yow lañuy ñuy caw te dañ la caw te maa nii na jël de ten ñett fukk yoom ñett fukki yar lañ lay caw de su ko defee nag waaye de yonent ne ko ah lii de problème la man su ma fekkee nit suma jabar bala ñoo oote bala maa dem di uti ñeenti seede fekk moom faj na soxlaam ba dem bon nag loolu na muy demee mu ne yonent ne ko seede rek indi seede rek soo xam ne dina saxal li nga wax mooy am de ba mu ko defee mu dal li ñuy bi ba mu demee rek dal ne li ma doon wax yonent bi ngi nii waa jaa ngi nii ci sama kaw jabar sa te te amul lu may wax de dem ci mbokkam ne ko man de nangam ak nangam moo xew ñëw ci yonent ne ko diw de dafa fekk diw ci kaw jabaram yonent ne ko seede rek wala ñu caw ko rek wala yow ma caw la mu ne amul seede yonent nag di waaj di ko di ko di ko waajal noo xam ne ni lañ tegee ci moom yoon caw ko juróom-ñett fukki yar ndax tuumaal na tuuma yoo xam ne munul am lu ko dëggal munul am lu ko seede de ba mu ko defee nag mu dal di jaaxle lool dal di ñëw ci wax ko loolu yonent ne ko daal indi seede rek wala ma caw la wala ma caw la juróom-ñett fukki yar yi de de yonent nag di xaar li muy def ci kaw waaji ndax yàlla dina ci dugg indi beneen àtte wala dafay wéyal àtte bi bokkoon rek xam ko defee yàlla dal di indi beneen at beneen àtte mu ne wala dina ñaañu yar mu ne danañu sànni azwaajahum ay jabar seen su ma lam yaatu topp di këtiñoo wala mu yëkkunte nekkul loolu ñee leen ay seede yoo xam ne dinañ seede li wax illa anfusuhum ndare bopp seen ñoom rek ñoo gis liñ xew fa shahadatu ahadihim seede kenn ci ñoom <coughs> joo xam ne juñ nangu la arbau shahadatin ñeneenti ngëñ la ñeneenti ñeneenti ñeneenti ngëñ yoo xam ne danañ ko gëñ de danañ ko gëñ loo mu gëñ ñeenti gëñ wal a bu gëñee ñeenti gëñ nag wal xaamisatu juróomeel ba an lu mbi tey ah bi an a arbau shahadatin billaahi ci yàlla innahu naka moom la mina saadiqina aji nekk la ci way dëggal ña de ne de kooku moom dafay jóg taxaw gëñ ñeenti gëñ li muy gëñ yëpp ne dafay wax ne moom li muy wax dëgg la li ko jabaram di tuumaal du dëgg dafay dafay fen du dëgg wal xaamisatu juróomeel ba nag andaanatullaahi naka yër soril yàlla yërmandeem alayhi aji nekk la ci kawam de in kaana dem nekk na minal kaadibiina ca way nar ña loolu ah loolu la loolu lañ leen di loolu lay loolu lay gëñee su fekkee nit tuumaal na jabaram te amut ku ko seedeel amut seede amut dara lu dëgg li muy wax yonent yàlla dafa indi nag beneen àtte mooy ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom na taxaw ci kanam mbooloo mi waat waat boobu ñuy def nag li ko daan def mooy gannaaw tàkkusaan nga xam ne nit ñëpp jot am nañ jot bu ko defee nañ taje ñoom ñu waat ci kanam nit ñi gëñ juróom gëñ ñeenti gëñ billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa dafay fen billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa waxul dëgg billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa juróomeel ba nag mu ne su fekkee wax na dëgg yal na yàlla wàcce ci man yal ma yàlla sori yërmandeem yal na ma yàlla mbugal de noonu lañ leen di gëñ looyee su ko defee nag mu taxaw góor gi taxaw jigéen ji taxaw gëñ ne kii li muy wax waxul dëgg dafay fen bu ko defee jigéen ji itam jóg taxaw moom tamit dal di gëñ ay gëñam billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ñeenti yoon sa juróomeel ba ne su fekkee li muy wax dëgg la yal na ma yàlla mbugal de moom la yàlla di jàngale ar innahu naka moom la min la min laanatullaahi naka sori yàlla yërmaandeem alayhi yal na nekk ci kawam in kaana dem nekk na minal makaadibiina ci way nar ña su góor gi gëñee ba pare dafay wax ne yal na ko yàlla sori yërmaandeem maanaam yal na ko yàlla mbugal su fekkee li muy wax du dëgg de waaye darawu dana jëñ an ci moom al azaba mbugal ma eh, al azaba géttan ba géttan bi bu ko defee nag su fekkee jëkkër ji gëñ na waat na ba pare li war li war mooy ne dañoo war a teg géttan ndaw si nga xam ne moom lañ tuumaal waaye nag du moom tamit danañ ko jox moom tamit mu ñëw eh, gëñ moom tamit waat ne moom tamit ñu koy tuumaal def ko de mu ne waaye darawu dana mu jëñ an an xaawalis ko al azaba géttan ba eh, an tashada mooy bu mu waatat arbaa shahadatin ñeenti ñeenti ñeenti gëñ billaahi ci yàlla innahu naka moom la minal kaadibiina ji bokk la ci way nar ña bu ko defee jigéen ji dana ñëw taxaw gëñ ñeenti gëñam ne jëkkëram dafay fen lim ko tuumaal du dëgg soo ñeenti gëñ ba bu paree nag waa wal xaamisatu juróomeel ba an radiballaahu naka meram yàlla alayha yàlla na wàcc ci kawam in kaana nekk na moom ci kër ji mina saadiqiina di way dëggal su juróomeeli juróomeel bi nag mu wax ne yal na ko yàlla mere meram yàlla yal na wàcc ci kawam su fekkee jëkkër ji li muy wax dëgg la ndax jotaay bi mu amee bi jëkkër ji gañee yonentu def na jabar ji ndax da nga mu ne ko waaw waaw danaa gëñ kay mu ne ko da nga mu ne ko danaa gëñ mu ragal leen yàlla kenn ci yéen kenn ci yéen ñàkkute def lii bon nag ragal leen yàlla mi nga xam ne Eh, moo leen di fay de mu ne moom dafay gëñ rekk ndaw si itam dal jóg taxaw gëñ ba mu mat sëkk ne moom deful dara de na jëkkër ji dafay fen bon nag ne doomu aadama yàgg naa pexe ci kaw dëgg ngir réeral ko ñoom ñaar ñoom ñëpp fi nekk nii kenn ki gëñ ne li mu gëñ dëgg la kenn ki gëñ ne li mu gëñ du dëgg kan la ci ñoom ñaar kenn xamul ñoom ñaar ñëpp gëñ nañ su ko defee nag fi mu ne atte bi atte yàlla rek la yàllaay atte nag ëllëg ci àllaaxira wala moo atte fii ci àddina waaye ndaw sa yàlla atte na ko ndax gannaaw bu mu juree doom ca ca ca biir ba doom ji kii jëkkër ji waxoon ne moom la bett moom doom ji kooku rek la dippi indi ko ñoo xam ne ndaw si moo def lañ ko doon lañ ko doon tuumaal wala laa fadlullaahi doon te ko nag yërmande yàlla ngëneelal yàlla aleykum ci yéen wa rahmatulah ak yërmandeem waa na laa ak naka yàlla tawaabu nanguwaa kooni tuub la xakki mun a ji la mu ci xatteen bon tey yàlla mbugal leen de su fekkoon ne yàlla nga neelu yàlla wàccul ci yéen su fekkoon ne yàlla du nangu ko ci tuub bon tey li ngeen xuus nii wax ko ci ndey ak setaag xaste koog loolu yëpp bon yàlla dina wàcc ci yéen mbugal de inna lazina naka ñaaña jaaw inna lazina jaaw bi lif ki usbatun minkum kooku lu ko wasal wàcc na ci xadiyatu ndey Aysata mooy buñ ko tuumaalee ne dafa njaaloo Ndeye Chata yonent def daan def buy génn xare dafay bind ay ay këyit turi turi ci jabaram yi dafay bind turi jabaram yi dal di sànni ne nañ for ku for sa këyit rek mu tombeek yow lay yow lay àndat yow yaay dem ànd ak moom noonu daan def balaa balaa génn ak jabaram yi bu ko defee nag ànd nag Ndeye Chata ñu dem ci benn xar bu tëbo tëbu wala yar bu xar bu tëbo ci lañ bañ demee xeex bi metti na lool waaye yonent mujj na gañe ay noonam nday ay sota nee na ñu andil ba gëléem gi ma waroon ci biir hudaj bi ma nekk ci biir génn bëgg génn sa bëgg génn tànk bi ma génnee bañ ñib siwaat ci biir gëléem gi fàttaliku ne sama caq réer na ma ma génn dem di seeti caq bi bi may seeti caq bi rek ndeke gaa yi ñëw nañ gëléem gi hudaj bi ñu ma dugal dafa xoyof dañuy foog ne maa ngi ci biir ndax man tamit damaa woyof aw ma benn diis ñu foog ne maa ngi ci biir hudaj bi rek ñu jë rek te ci kaw gi daal di jóg dem ma ñëw fekk gaay yëpp dem nañ man kenn rek jonnang ci àll bi mu ne aw lu may def ma tëdd gis naa suma caq bi ma doon seet gaa gis naa ko waaye ma ñëwee gisuma kenn ma tëdd rek fekk am na ci saxaaba yi ku des koo xam ne buñ xarewaan ba pare daf daan wër jullit ñi dee jullit e, ñi dee di leen wër di leen seet ngir denc leen bu ko defee safwaan lañ koy wax moom tamit ma nga desoon ca àll ca xarewaay ba ba nit ñi demee muy nekk di wër nag ñi jullit ñi dee ngir mën leen a suturaal itam xéefar yi nga xam ne dee nañ itam mu mën a nangu seen alal am nekkee ci loolu ci di di wër rek di wër rek ba seen jëmm ju taxaw wala jëmm ju tëdd mu ne ah lii da jëmm tëdd la dal di ñëw jubal si ko bi mu ñëwee baax si moom rek fekk muy ndey Aysata mu dal daw dellu gannaaw dal di daw dellu gannaaw waxu ko dara daldi indi gileemam ba mu tolloog fi ndey Aysata mu mu yësal ko gileem gi dal di yës ndey Aysata dal di ñëw yéeg ci gileem gi mu dal di euh, ñëw di ko xommat di ko yóbbu ngir dabi xare ba nga xam ne demoon nañ dab nañ dab nañ xare bi ci digg cëg bañ ko defee eh, abu abu eh, eh, na fekk bu mag bi Abdoulaye ibn Ubay moo leen gis dal ne hee ndekete ñun ñuy dem yëpp nday ay ak safa ni ngi ci àll bi di njaaloo rek dal di koy siiwal nit ñi di ko wax waxee rek xam nga nit moom moo fi gën a bëgg bëgg bëgg wax lu yàq kilifaam yàq yàq kilifa moom lu yomb nit ñi la su ko defee gannaaw safwaan wax yow jaar nee na safwaan mii ak ndey Aysata mii dañoo nekkoon ci àll bi di njaaloo bala moo am xàll ak saa rek wax bi siiwa siiwa siiw te saaroo ñëpp dégg ko bañ àgg Medina benn bés nag ndey Aysata génn ne dafa bëgg a génn tànk maanaam booba ay douche yi di am ci biir kër yi amaguñ ku bëgg faj sa soxla da ngay dem ci àll ba ndey Aysata génn dem ci àll ba di faji soxlaam ànd ak benn jigéen bu ñuy wax ummu mastax mu ne jigéen ñi daal ak moom di dox ba mu yàgg mu fakkatalu ne yàlla na yàlla xalak mastax yonent ne ko wax nga lu bon di kooku di ba yonent fekkee fekkee xare Badar nga di ko wax lii mu ne ko xanaa déggoo lim la wax mu ne ko lu mu wax mu mu daal di koy nettali li wax mu ne ko loolu wax nañ ko ci man mu ne ko wax nañ ko ci yow mu ne ko loolu nit ñi dégg nañ ko mu ne nit ñi dégg nañ ko mu ne ko loolu yonent yàlla Muhammad dégg na ko mu ne ko yonent yàlla Muhammad dégg na ko nday sasa nag dal ñibbi këram dëkkee jooy gu dégg ba cëg jooy rek jooy jooy jooy ba ragal ne raison bi dina toj ndax jooyam yu ndax jooyam yu métti mu ne nag ci kaw loolu ak jaaxleem ak tiitam nit ñi di mbëlalali rek nday sata safwaan nday sata safwaan nday sata safwaan dañ daan dañ doon jaloo ci àll bi ba ko defee nag ndey Aysata bi mu xamee loolu daal di ñib si néegam rek te dina dootu génn di jooy rek di jooy rek di jooy rek mbir coow li mbamb mi am na lu mat weer ci diggante fañ ko tuumaalee ca àllu xare ca bay daan jihaad ba ba ci biir kër gi nit ñi mbalalal mbalalal ndey Aysata ndey Aysata safaan ndey Aysata safaan wax ji métti lool jafe lool ak si ci yonent mu jafe lool ci moom yonent itam sallallahu alayhi wa sallam yonent daal di oo Babacar oo Omar oo osmaan oo Ali ne leen lu ngeen xam ne ne ne ne Ousmane ne Ousmane ne Omar loo xam ci lii mu ne ko nit ñi dañuy fen du dëgg li ñuy wax ci sa jabar du dëgg mu ne ko lu tax du dëgg mu ne ko toog naag yow benn bés ngay julli Jibril wàcc ci asamaan ñëw ne la sa dàll bi dafa am sobe bon summi ko gannaaw sa dàll bu am sobe mooy wàccee Jibril naka jigéen su sobee nekk sa kër loolu yàlla du ko seetaan de bon du dëgg ah, ah, ah loolu la Omar wax Ousmane itam ne du dëgg loolu mënta am sa jabar du def loolu mu ne ko lu tax mu ne ko nekk nag yow benn bés nga ne sa yaram bi ah, weñ du ci la weñ du ko laa ak itam sa takkandeer du feeñ ndax sa takkandeer bu feeñee léegi tey ngay dox mu laal so léegi tey sa takkandeer bi laal sobe te yow yàlla daf laa sellal bon nag yàlla moom nga xam ne seela ne loolu dina la bàyyi ngay dëkk ak jigéen joo xam ne dana mel noonu te waxuloo ko du dëgg mu ne Aliou yow nag mu ne ko dëgg laa du dëgg yëpp fase ko rek moo tax ñoom ñaar ju wowuñ gannaaw gi gannaaw yonent hmm? mu ne ah? ba mu ko defee nag eh, yonent dal di bàyyi nu coow li gën a dalee rek benn bés nag mu dem seeti Aysata kër baayam ay Aysata mu ne li ma xamalee ne rek am na lu xew moo yonent bu ma feebaraan ku daan am ci man itte la di ma toppatoo di ma wutal garab waaye bi yoon feebar naa yonent yëgul sax ne feebar naa léegi taxaw ci bunt bi rek naka seen kooku naka la def mbaa mu ngi tànn foofu la yem man ba mu jóge ma ñëw ne yonent dama bëgg nga may ma ma dem suma kër baay dem fajoo fa yonent ne ko demal mu dem ba mu demee nag am fay fan yonent daal di ñëw seet si ko bi mu ñëwee oo yaayi Babacar yaayi Aïcha ak baayam ak yonent ak Aïcha ñu toog mu ne Aïcha su fekkee da ngaa li ñu la wax def nga ci dara tuubalal yàlla nangul ne yaa ko def ba pare te tuub yàlla dina la baal de waaye nag su fekkee yaa ngi nëbbatu loo xam ne yaa ko def da nga xam ne yàlla moom xam ne lu nekk da Aïcha te daal ne dama ndekete kuy jooy kuy kuy kuy na ne ngaa jooy dangaa ngaa jàqul rek waaye boo jàqee dëgg-dëgg dootoo amati looy jooy de mu ne sama yaay a ngi toog sama baay a ngi toog mu ne mën ne bàyyi tontul ma bàyyi ne ko ah, man amul mooy tontu yonent bi di mu ne yaay tontul ma yaayam ne man amul ma tontu yoon amul ma tontu yonent bi mu ne man de xale laa jànguma xaw ma dara xas nañ wax wax ji tasaaroo na nit ñi mën nañ koo gëm mën nañ koo bañ a gëm te gëm ko moom lañu gën a yombal waaye nag maa ngi wax la sama mbokk yu soo waxoon la sa sabrun jamilun wallaahul mustaan aw ma dara damay muñ rek yàlla mooy dimbale ko xam ne tooñ nañ ko de waaye ne Aysata nee na man xam naa ne dinaa dëñ ndax liñ ma waxal defuma ko du benn dëgg amul de ba mu ko defee nag fi yonentu toog di wax ak moom rek la ko daan dikkal bu wax yi di ñëw dikkal ko mu daal di commencé di lox di ñaq mais Cheikh daal di koy jox benn mbubb benn mbalaan sàng ko ko jox ko ngeeganaay mu sukkandiku ba wax yu nga wàcce wàcce wàcce ba jeex ba mu génnee li mu njëkk def rek mu ne Ndeye Aïchata santal yàlla mu ne Ndeye ne alhamdulilah yàlla setal na la Ndeye Aïchata nee na ragaloon naa ne xamoon naa ne dinaa set ndax defuma ko te yàlla dina ma setal waaye nag moo ne nag. àgg naa foo xam ne alxuraan mooy wàcc ci man di ma setal waaye alxuraan moo wàcc ci man setal ma ba mu ko defee Babacar ne Babacar ne Ndeye Aïssata jógal gërëm yonant mu ne ko du ma ko gërëm de ndax bi nit ñi di wax yëpp déggoon na ko te su ma dañal bon nag moom nit ñi yëpp ñooy moon yàlla mi ma setal rek moom lay gërëm de mu ne daal di daal ne yàlla mi ko setal rek moom lay gërëm de bàyyi mu ne Ndeye Aïssata boobu dafa matut waaye Babacar mi nga xam ne mat na dafa gis ne yonent lañ war a gërëm ndax bu fi nekkutoon wax yu du wàcc seetal Aboubacar du wàcc de bon nag yonent ndax daf ko war a gërëm de inna allaha inna alladina ñaaña jaawu dikke lañu bi lif ki can ca ca duut ba osbatan mbooloo lañu min kum ci yende ñi nga xam ne ñoo dikkee nag ñoo dikkee duut woowu yëpp nag na xam ne xaaj lañ ci yéen mbooloo lañ ci yéen rek yéen waa Medina yeeg yéen ñi wax ne jullit ngeen nag yéen ñëpp ci la loolu bàyyi ko de moo tax doomu dama ay jege ñaaleem rek moo ko mën a yàq moo ko mën a tasaare ci àddina bi mu yàqu waaye sa sa sa sa njaboot say dëkkandoo say xam fekk ñu ngi ànd ak yow di la sàmm kenn mënalul la dara waaye nag seen dëkkandoo buñ ubbee seen bopp rek moo tax gileem ga Euh, euh, nag wa waxoon euh, nag wa waxoon na ko mu ne déedéet ñoom ñett nag wu weex ak nag wu ñuul ak nag wu xonq ànd na dañuy gëñoo ndax bu leen kenn mënal dara ba mu ko defee gaynde di leen rëbb di leen rëbb ba gis ku ko waxal ni ko nag wu ñuul wala daal boo ko jàppee rek bu mooy seen chef boo ko jàppee rek bu jeex ba mu ko jàppee nag mu des ñaar ñaar yi kenn ki ne morom ki bañ jàppee nag wu ñuul wa rek lañ xam ne jeexal nañ de ndax suñ morom ndax suñ mbokk moo ñu feeñal naka noonu mooy yonent moom la yàlla di wax ne na lazina naka ñaaña jaaw di ko nañu bilif ki ci duut woowu oswatun mbooloo lañ min kum ci yéen de yéen ñëpp ay mbooloo moo xam ne ci yéen lañ abdoulahi ibnu obay ak hassan ibnu sabit woykati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñeneen ak ak musattah ak xamnatu binti jahshin ñooñu ñooy mbooloo yi nga xam ne ñoo siiwaloon wax boobu ci Ndey Asata laa tax si boobu bu leen joxtu ko nag yéen jullit ñi saran muy xay la kum leen bu leen foog loolu nag xay la mu leen ñeel yéen jullit ñëpp mbooloo mi ko séq rek ci ñoom lay wàcc de bal bayit woo moom xayru xiiw la la kum leen de loolu ngeen xuus yëpp dugg ci di wax ci Ndey Asata lu ngeen war a wax ak lu ngeen warta wax na xam ne loolu xiw la boo xam ne yàlla dina leen ci yool de te yàlla dina feeñal set ak yonent yàlla set ak Sayyidatuna Aïcha ne liñ koy tuumaal defu ko de te setal na ko ci alquran ah te kullu imri'in li ko limri in aji nekk la yeel képp kenn minhum ci ñoom maa kasabat la mu fàggu mina lismi ci bàkkaat kenn ku nekk ci yéen nag la nga xam ne fàggu na ko ci bàkkaat ci mbir mii nga xam ne moom moo ko sàkkul boppam de wala yi waaye kaaka te wala méngoo na mu kibrahu magam ga màggam ga te mooy abdullahi ibnu ubay lahu war na ci moom azabun bugal azimun mu de aji màgg ci du ci bii ak ëllëg ci àllaaxira de Abdullah ibnu Ubay moom safara rek la jëm ndax moo euh, moo moo sos sos wi ci biir nit ñi moo wax ne safwaan moo def lii safwaan moo def lii ak ak Ndey Aysata ba nga xamee ne nag yàlla wàcce na laaya alquran ba setal ne ay Ndey Aysata nag dal di sant yàlla ne moom de foogoon na ne yonentu dafay gént rek yàlla setal ko waaye nag alxuraan wàcc ci moom di ko setal loolu moom xaaru ko woon de sara euh, nga ne googu xaaru ko woon de alxuraan yi bi mu wàccee nag safaan mooma ñu daan tuumaal ne moo doon nekk ak jabar yonent ci àll bi nekk safaan sax tuuña la xamu xamul jigéen mu daal biñ ko bi demee ba yooyu yëpp pare mu daal di ñëw tekki tubéyam ne xool leen man tuuña laa mu ne lu ma jigéen dara musuma xam jigéen xamul ma luñ mel bu ko defee nag gën a setal ne setal rek law laa istamatu mu lutee ba ngeen déggee ko zan na jortoon moomi noona jullit ñu góor ñi wala moomi naatu ak jigéen ak jullit ñu jigéen ñi benn sim ci bopp seen xayran aw xiw waqaalu ñu wax ne haazali la nar la mu biirul mu daa ji bidde lu tere ba ngeen déggee wax ji yéen ñëpp ngeen rafetal seen njortu ci ne Aysata wax ne lii duut bu duut rek la waaye du dëgg waaye nag euh, mu ne na tàng tàngee na def ni jabar yi ni jigéen ni ummu ummu xalaf ni mu defoon moom ba mu déggee wax bi def ne wax bi du dëgg ñu laaj ko lu tax du dëgg mu ne jëkkëram yow boo wéetoo nag nday Aysata ci àll bi dinga def loolu mu ne ko mukk mu ne ko safaan moo la gën a baax fuuf man mii su fekkoon ne may nday Aysata ndax loolu dinaa ko def mu ne du ma ko ne du ko def mu ne ko bon nag te man nday Aysata moo ma gën fuuf bon nag wax bi wax bu ñaaw rek la waaye nday Aysata def loolu de yàlla mu ne tàngee na def ni kooku defoon rafet njort ci Aysa rafet njort ci njort ci Aysa moo gën li ngeen xuus yëpp wax ko ci wax ñu ñaaw ci kaw Aysa de law laa jaaw lu tee ñu dikkee ñoom ñu ko wax alayhi ci oote boobu ñu oote bi arbaati shooda ci ñeenti seede lu tee ñu indi ñeenti seede yoo xam ne dañ leen di seedeel ne lii ngeen ne lii moom la ñuy wax ci lañ ko tëral fay lam yaatu ndéem dikkewuñu bi shooda ci ay seede fa walaay ka ñooñu la gaa yi um ñoom alkaasi bu la ñooma de way nar indallahi fa yàlla de fekkee mënuñu ay indi ay seede nag nañ xam ne dañuy fen rek yàlla te yàlla jàppee na leen ay fenkat muñ bu ñu nekkee ay wax ci nit ñi ñuy dëgg seen wax yàlla moom bind na rek ñoom ay fenkat lañ jeex nañ wala laa fadlulaahi donte kon nga ne nag yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem hmm? fi dunya ci àddina wala axirata ak alaxira la wasakum kon tey jot leen fii ma afatum na ngeen xuus fii ci moom azabun mbugal azimun mu daa ji màgg de su taxutoo nag ngëneel yàlla ak yërmandeem bon tey musiba mu mu rëy dana wàcc ci yéen ndax li ngeen di xuus ci loolu ngeen di xuus di di yàq derab yonent de yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sama jabar la ñoo xam ne musuma am ci moom sikk musuma gis ci moom bon nag ku ma sosal lii def danañ la teg ci kaw yoon de moo tax ba nga xam ne ni fee feeñ na mooy Abdullah ibn Zubayr ak euh, Zeyd ibn Sabit ak euh, bint Jahshin Euh, ak euh, yeneen sax yeneen saxaaba yoo xam ne yi ngi ci ñoom ñëpp yàlla teg ci yéen yonentu wax ne nañ teg ci ñoom yoon nañ leen caw yoon ñoom ñëpp ñu caw leen Abdullah ibnu Ubay nag moom dañ koy dubleel cawam ndax dañ ko caw juróom téeméer ak juróom benn fukki at moom lañ ko caw ndax mooy ki nga xam ne moo mbéngoo mbir moomu moo ko tasaare boo ko njëkk a sos moo tax moom juróom benn téeméer ak juróom benn fukk lañ ko caw ñi des na kenn ku nekk juróom-ñett fukk rek lañ la caw Abdoulaye ibn Ubay moomu nag yonent nee na safara la jëm moom bu dee safara la jëm de istara xaw na wu ba da ba da ngeen joxante ko bel si ne ko ci ay làmmiñ seen ba ngeen koy joxante ci seen làmmiñ di wax rek di wax di wax di wax mba mbamb bi bari lool wa taquluna na ngeen di wax bi yow faayekum ci làmmiñ seen maa laysa loolu nekkul lakum ñeel leen bii ci ba may mun xam-xam watax si bu nawoo ngeen jot ko yi nan muy aji ye mu bàkkaat bàkkaat xamu ci woowo moom azimun aji màggalamu indallaahi fa yàlla de ngeen nekk nag mbalalal li mbalalal di wax foog ne da ngeen di wax noonu dara nekku ci da ngeen di wax rek te dara du leen ci fekk te fekk mbir mu kawe ci yàlla mbir mu màgg la ci yàlla de walaw laa istabitu mu dutee ba ngeen déggee ko xultum ngeen wax maa yakunu xedul dana ñeel nu an na takkaloo bu noo xat fi bixaala ci lii la de ñun de xeerlut ci ñun ñuy xuus ci wax jii di ci wax ñun xeerlut ci ñun ñun nañante rek fi ñu alquran yam loo ah, subhanaka subhanaka kéemtaane na subhana subhanaka kéemtaan xaala lii de buxtaan noonu nar la azimu daa ji màgg de li ngeen di wax yëpp ay nar rek la nar yu mag yoo xam ne yéen a koy sos xam nga doomu aadama yi ñoo fi gën a gaaw loo xam ne du dëgg te dere nit mën na cee yàqoo ñoo gën a gaaw pour tasaare ko pour mu tasaaroo tasaare aw yi tasaare loo xam ne lu lu lu ñaaw la lu bon la moo gën a yomb ci ñoom tasaare loo xam ne yiw la pour pour pour pour pour damaalam tasaare yiwa di moo gën a yomb ci ñoom tasaare loo xam ne yiw la ci nit de moo tax mu ne yàlla mu ne lu tee ba ngeen déggee wax jii ngeen ba seqoo te ngeen noppi tëj seen làmmiñ te wax loo xam ne ci la seen njëriñ nekk de te wax ji ngeen di wax ngeen foog ne wax ju yomb la bàkkat bu rëy la ci yàlla dina leen ko jàppee de te yàlla dina leen ko jàppee wow moom buxtaanu nar la xaalaale de buxtaanu nar la azim mu daa màgg ba nar wu màgg la yaay sukum dana ragal loo leen yàlla an taw bu ngeen dellu woon li misri yi ci kemam abadan da peet yàlla leen di wattuloo nag bu leen defal ci li mukk in kuntum ne nekk ngeen mu'miniina di way gëm su gëm ngeen yàlla tey waadu lii bu leen ko defatee wa yubayyinu laahu dana bidal yàlla lakum ñeel leen te kawteeg yu yu yu dëggu ya wallaahu yàlla alimun aji xam la mu hakimun aji xereñ la mu ci àtteem de lii ngeen di wax yëpp nag yàlla xam na ko na ko leeral ci xam-xam bu leer nañ inna alladina naka ñaan yuhibbuna danañu bëgg an tasii'a bu siiwal alfaahisha lu ñaaw ci làmmeñ yi seen làmmeñ ñi nga xam ne ñu ngi bëgg rek siiwal lu ñaaw ci seen làmmeñ wax ju bon siiwal ko fi lasi dañ ta ñaaña amanu gëm nañu ci ñi nga xam ne gëm nañ yàlla lahum war na ci ñoom azabun mbugal alimun muy borom ak métti de ñooñu yàlla dina leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu métti fii ci àddina fi fi dunya ci àddina wala xira teg àllaxira wallaahu yàlla yàlla mu dana mu xam wa antum yéen laa taala mun a xamu leen de ñi nga xam ne liñ bëgg yëpp mooy siiwal wax ju bon ci nit siiwal wax ju ñaaw ci nit wax ju bon ci nit yàlla nee na ñooñu man yàlla dinaa leen mbugal fii ci àddina te la ci àllaaxira itam dinaa leen mbugal de ndax yàlla xam na lu ngeen xamut yéen wala laa fadlullaahi doonte kon nga nee la yàlla aleykum ci yéen wa rahmatu ak yërmandeem wa anna laa ak naka yàlla raw fu na ji ñëwee ci lëmu ñeer leen raxiimu na ji yërëm la mu leen de su fekkoon ne yàlla melu noonu ci yéen di borom di borom ngëneel ci seen kaw di borom yërmande di borom ñëweti ci yéen mbindeefam yépp ni ko doon mbir mi dina ni ko doon yàlla dina wàcc ci yéen bugal de waaye nag loolu jiital na ko ci yéen de yàlla jiital na yërmandeem ci yéen yàlla jiital na ñëweteem ci yéen bon nag jiital googu mu jiital ñëweteem moo tere li ngeen di dugg lu bëree bëree bëri yépp dara du leen ci fekk de. gis nga xeet yu xeet yi weesu woon ñu leen daan mbugal lañ daan def yépp ci lu bon xeet yooyu da nga koy def de mun naa am sax mu gën a bon waaye terewut yàlla leen fi bàyyi mbugalu leen waaye mu ñuy nettali ci alxuraan li nga xam ne fa la xeet yooyu yépp jaaroon ba tax yàlla mere leen ba mbugal leen dëgg-dëgg boo seetloo loolu mu ngi xew ci biir xeet yonent noo xam ne xewewu koo moo tax yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sa taftariqu ummati ila salaasin wa sabina firqa kulluha fi naari illa wahida suma xeet danañ fasantikoo juróom ñaar fukki yoon ak ñett ñaar juróom ñaar fukk ak ñaar yëpp safara lañ jëm benn rek moo ci dem aljanna mooy ñi nga xam ne ñi ci li ma nekk ak samay saxaaba ñi ci ñi ñi ñi ñi ñu nekk ci li ma nekk ci sama sunna ak gëm yàlla de waaye xeet yonent nag na ngeen xam ne képp koo xam ne ña gannaaw yonent nga rek xeetam nga yonent xeetam bi ñaar lañ ummatu daawa ak ummatu euh, rafdi ñi xam ah ummatul ak ummatu daawa ñi nga xam ne yonentu woo nañ leen nangu nañ ñooñu ñooy umma bi tax ñuy wax umma waaye umatu bi nga xam ne ñoom nanguwuñ ñooñu ba tey kenn mënu leen a génne ne ci xeetu yonent lañ ndax ci biir xeetu yonent lañ waaye nag nekkuñ ci li nga xam ne moo tax a jóg yonent de bon nag bu ñu waxee umma umma bi talaata wa tala isnin wa talaatin yëpp safara lañ jëm benn bi moo jëm aljanna yëpp mën naa génne ci yi nga xam ne xeetu umma bi nga xam ne nanguluñ ko dugguñ ci diineem oo nañ leen nanguwuñ waaye loolu génnewu leen ne ci xeetu yonent bi dañ bokk de allahumma salli ala sayyidina muhammad yéen tare bàyyi fu ngeen mën ci nekk fond baa ngi nii taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour shérif yi nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na ñu bëri donc bon fond bi daf fee war a nekk maa ngi leen di wooyee yépp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal baay la ah digalal baay la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci baay maa ngi leen di xamal ne fon bi ndimbal la pour taalibe baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara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 ba pare jënd ciitam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi mu ñu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.